dafa am côté bi état war a taxawee ak médecine tradipassé yi man maa koy wax te taxawuñu état bi dimbali wuñu état bi jàppalewuñu wuñu état bi séentu wuñu sa xooluñu ñun ñooy kan te jamono ngi ñëw sama gént du ma nax mukk te ñëpp dinañ ci teg seen bët gént gi ma gént mooy yëg naa ne ni état dina taxaw ci bis ne traditionnel yi bu kenn waxati ci télé bu kenn publicité bu kenn génnati xam naa foofu rek moo des ak ñun te ñu nga ca li ci ma li ma gën a metti nag mooy di dañuy ñu ñuy fayloo impôt hmm, xoolal man àdduna bi yéen ñëpp na ngeen ko seede dañ may fayloo impôt waaw lan moo tax may fay impôt di fay ay millions impôt te état bi du ñu te état bi récolté wul tradi passé loolu mënul nekk si c'est pas possible hmm. léegi nag may wax ni ni hmm. man dootuma fay impôt may ma ñëw mbub mii ma sol du gouvernement moo ma ko jox ma jënd ko sama ñaq laa ko jëndee te lu leew laa ko jëndee déglu ma kër gi ma am oto bi may dawal noonu 4x4 yi may ma may ma suñu seex oto bi gouvernement di dawal donc laay dawalee 4x4 mm-hmm. bi président bi di jox ay ministre am ñuy toog ministre yi 4x4 yi ñu jox sa sama 4 x moo ko gën a riis dinañ doon benn ci réew mi seet ñi mën ñu fal leen ñoom ñëpp ñu taxaw ñu taxaw ñu ànd ñu def suñu masse takk suñuy mors yu xonk taxaw ci réew mi woo waa bi yëpp ñu ñëw ñu wane suñu xam-xam wane suñu doole wane suñu capacité wax ko ku ragal ku ñemewul sama numéro nga woo man sëñ Bass Ndiaye maa koy wax déedéet moom laa la wax dama ne su fekkoon damay laaj jinne yi xaalis ñoom ñu jox ma ko ma dugg ci machine masi matan ir air amassement dolima sur matan dolima suris que petit chien sous masi tatataf lettre trait de dit de au maprosin kandrosin wallaya takoro mastamas haajin taykal daajin fahedari samlatu aylaka fa awlaku luwaya omasi appel de l'argent tout de suite li ma làkk la ah Cheikh man kan fori laa du ma xale man nit ñi xamuñu ma non non ma ne bi mooy yow non non man du ma luxus neel benn toog naa déglu ma toog naa ca benn télé waaw ma def wàllum luxus wane nit bu xaas nekk ca poosam wax ko mu ñëw ne leen lii amul dañu leen di nax ndax ñi koy def boo lañu gisee yërëm leen jox leen sarax bi ci des buñ ko mënoon dem ca banque ba luxus mënuñu ko dañuy obligé pour nax nit ñi ci seen i or ak seen diamant ak seen extra ak yeneen naan machine euh, nangam man am naa machine noire am naa machine blanc bii ma wax léegi mooy machine blanc mooy machine matin ur air avancement doliment sur matin doliment suis ko petit chien ay France la mais ñi jàng euh, professeurs yi nekk ci université Dakar yi mënuñu xam France yi may wax xamuñu ko sax